wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi ak mbokki bitim réew yéen mbokk yi ni topp ci Seneweb nu ngi leen di nuyu nuyoo jullit jëm ci ay mbokki jullitam nuyoo taalibe jëm ci ay mbokki taalibeem di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jaamal siise jàng naa ci minanu baaxil xaddim bu sëñ Basiiru sëriñ jaamal de toog na am kuy bëgg a jëw Cheikh Ahmadou Bamba ci wetam mu tëj làmmeñam ni ko noppil yàlla moom may yi di ko maye. soo gëmee ne yàlla mayoon Cheikh Ahmadou Tidiane yàlla mayoon Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani war ngaa gëm ni moo may Cheikh Ahmadou Bamba mii may gum mayul kenn nga nangul ko ko loolu rafet la te gis ngeen alaaji baara fàllilu mi njëkk a toog ci sëtu sëñ Tuubaa yi bi mu jeexalee njàngum alquraanam war a jàng xam-xam sëriñ Fàllu da koo jël jox ko sëriñ Abdoulaye Cissé jaamal ni ko jàngal ko xam-xam moo ne ñi ko mën a jàngal nga Touba de ay kàngam yu mag yu wëroon sëñ Touba mu defar leen ñu jàngal ku ne ci xam-xam ñu nga Touba lan moo tax sëñ fallu jël ko yóbbu ko jaamal bëgg ñu xam ne diine islam dañoo war a yaata lépp benn la mu joxe ko jaamal mu jànge fa xam-xam ba jeexal sëriñ jaamal bind lettre sëñ Fallou ni noppi naa ci moom lu waay di laajati laaj ko ko dina la tontu kon defe naa loolu mooy xam-xam bu wér a wér bu nekkoon ci diggante mag ñi alaaxa bu rafet jàppante bu rafet soppante bu rafet lool rek moo doxoon ci diggante mag ñi yàlla na yàlla fay leen ah, te taaf nu ci seen barke yàlla na yàlla fayal sëñ Muntaxa ah, ak mboolem njabootu islaam yàlla fayal nu cheikhul xadim màggal gi nu jëm yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla defal nu ci ndam yàlla ñu am yóbbal bu doy buñ ci def yàlla bu ci kenn loru ñu tege ci yoon dikkaat ak jàmm mbas mi tam yàlla jeex ñëpp dellu ci activité yi ñu ngi sant ñëpp xam naa nag lu ma ci wax te mu dëng rek xam leen ni yéene yi bëgg a booleeg wax lu ci dugal euh, waaye du ci du ci du ci sama yéene lu ci jub tam du ma ci dara maa ngi koy sant Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñu ngi doon topp ñëpp di baal ñëpp xaq di baalu ñëpp xaq seen mbokk la woon Abdoulaye Diop Bichri ci seen site seen web kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di sant sëñ Talla Gueye mi ñëwoon ak équipe bam di ko jël si yàlla nañu yàlla nangul yàlla nañu defal tawfiix defal nu sutura wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi zawin nawalin